rafetlu ànd bi ak yéen ci Sunugal 24 mbokk yi asalaamaaleykum dal leen ak jàmm ci biir jotaayu xibaar nes tuuti ñu faram fàcce. Sunugal 24.net dañu koy door ak l'international sénégalais bi di Moussa Wagué nekkoon ci jafe-jafe ci wàllum wér yaram ay weer yoo xam ne kenn gisu ko ci terrain bi Moussa Wagué ak njaaxle gi taxoon sénégalais yi jaaxle ko ci moom mu mel ni mujjee nañu ci am xel mu dal ginnaaw bu mu génnee nag ci Instagram di bind ngir nag remercier ñi nga xam ne ñi ngi doon ko soutenir durant feebar bi yëpp moom Moussa Wagué nee na mi ngi ci jàmm te itam opération bi euh, am na succès te bu génnee ci lii dina dellu si waat ak force ñu wax ci tiktokeuse bi di Faidara mujjee naa wax lu ëpp ginnaaw bu ko sénégalais yi bëggee woon mu mel ni ña ngi koy mujjee jéppi ak kar yi nga xam ne yëkkati na ko ca invitation ba ca 2STV mu di émission boo xam ne Faidara wax na fa wax joo xam ne ñi nga xam ne ñoo ko bëggoon di ko apprécier te di ko bindal ay commentaire daal dinañu koy xas ba mu ràpp fu ci mel ni Facebook ak fa nga xam ne moom moo di Instagram ba ci TikTok ndax nee na moom du liir ay commentaire talu leen sax commentaire yi ab manager moo ko koy wax te amul jotul lire li nga xam ne moo di commentaire ñenn ci ñi nga xam ne ñoo ko doon commentaire bokk na ci Seydou Diallo nee na Faye Dara ñi nga xam ne ñoo koy bind rek ñoo tooñ seen bopp ñeneen ñi ca des daal di ne Faye Dara dafa jàppee boppam lii di ab star te itam jot nañ abonné woon daal di désabonné ci moom ndax xamul boppam ñu dem ca yëmbal benn braque ak la fa jot a xew kawteef benn xale bu góor bu am fanweeri at la ñu fekk mu daal di uh, faatu ci néegam ñu ñu ko xamal di waa yees Dakar tax na police daal di ci ubbi ab enquête ngir nag ñu xam xale bu góor boobu dañ ko boom wala dafa dee dee bu naturel ñu ñu xamal itam ne moom xale bu góor boobu nekkoon na góor boo xam ne amoon na jabar waaye dafa mujjee divorcé ca faatoom nga mu faatu am na ci ñoo xam ne lënt na ci seeni xel ba waral ñu daal di nag wax ne police na ci def liggéey bi ci war ngir ñu am ca résultat yi gën a gaawee ñu dem ca Casamance village bi di Boutoupa Camara ak ñaari xale yu góor yi nga xam ne jotoon nañu fa réer ci le 29 novembre bi nga xam ne moom la ñu gént ginnaaw bu ñu moom la ñu génn ginnaaw bu ñu nekkee woon ñetti xale yu góor kenn ka la ñu gis ñeneen ñaan ña seeni mbokk doon leen wër lu tollook ñaar fukki fan daal dinañu leen di mujjee gis ci àllub Casamance ba seeni néew la ñu gis ña nga xam ne ñoo leen teg ay gët di armée sénégalais bi nga xam ne ñoo nekkoon ci àllub Casamance bi mu mel ni dañu leen a mujjee boom waaye ba ñu leen di fekk néew yooyu ba ñu koy fekk ci àll ba itam seeni i néew yàqu na tax na ñu daal di fexe nu ñu leen di suulee foofu ngir nag yëgal seen i mbokk ne ñooñu mujjee nañoo génn àdduna ñu dem ca Rufisque quartier bii di Safar ak askan wa jafe-jafe ya ñuy yeewoo ñàkkum ndox gi waral ñu daal di génn booloo nekk benn ngir nag dox seen doxu ñaxtu waaye takk seen ay morso yu xonq ngir fësal seen naqar ndaxte nee nañ askan wa yeewoo ca boobule gox lu ëpp juróom-ñetti at yoo xam ne dañoo am jafe-jafe ndox te itam seen jigéen ñi sonn nañu ñu ci bari dañoo feebar boobu ñu demee hôpital li nga xam ne moo di insomnie dañu amee ndax duñu nelaw guddi te itam jafe yi nga xam ne moo fa nekk dañuy toog weeru yàllaw lëmm duñu am ndox ki ñu xamal yooyu le kàddu di Mamadou War ginnaaw émigration bi ci réew mi Barça wala Barsàq gi waral ëpp juróomi téeméeri ndaw ci biir réew mi jot cee ñàkk seen bakkan état bu Sénégal jëlaat na ci yeneen disposition ngir ñu xool ndaka la ñuy saytoo géej gi ngir nag ndaw yi dakkal li nga xam ne moo di émigration ba tax na ñu daal di andi li nga xam ne moom moo di ab avion NC 235 220 MPA daal di koy immatriculé AX 23 48 ngir nag armée bu air sénégalais daal di ci def liñ ci war a def ngir nag. ñu mën a saytu géej gi ngir dakkal ndaw yi jël gaal yi dem ca bitim réew ñu wax ci série bu bees bi nga xam ne mi ngi tax sénégalais yi di ŋàññi yenn sites yi wala yenn maison de production yi ginnaaw bu ñu coowee li nga xam ne moo di infidèle ba noppi beneen série bu gën a yées dal daal ñu koy gis nit ñi di ko partager ci réseaux sociaux yi mu di ñaar ñoo xam ne ñi ngi tëdd ci seenub lal di def lu leen neex tax na ñuy ñaan ci waa Jamra ak ñi ne ñoom ñoo ŋànk lépp loo réew mi ngir nag ñu teel a wax ci liy raam jëm ci ñag bi te bu fa amee kër du fa gaaw a génn coowal coronavirus li ñu naan deuxième vague tax na ñenn ci askanu Sénégal daal di jàpp ne nag yëf yi du coronavirus waaye coro business la ndaxte nguuru Sénégal day business ci li nga xam ne moo di coronavirus ba waral ñu daal di créé waat seenub deuxième vague yenn ci ndaw yi suñu gaal 24 jot nañoo wàcc ci terrain bi dégg seen micro askan wi ngir nag ñu xam ban position lañ koy gisee waaye ñoom euh, dañoo lank ba kandaar nee na bu fekkee couvre fa dina am itam duñ ko nangu tey duñ ko nangu ëllëg jot na nguurug Sénégal ñu dal di jàmmarloo ak ñoom ngir ñu bañ ñoo jàppee seeni ginaar heure bu leen neex tëj heure bu leen neex euh, tijji ba tey ñu des ci coronavirus artistes yi ca Saint-Louis ginnaaw bu ñu teree artistes yi ci biir réew mi yépp ñu dakkal salle de spectacle yi ak lépp loo xam ne ay cérémonie la yu ñu doon def artistes yi nekkee ca Saint-Louis ñoom ginnaaw yu ndakaaru ñoom itam jël nañ décision ngir nag joxante loxo xeex li nga xam ne moo di seen àq ak seen yelleef nee nañu duñu ko nangu tey duñu ko nangu ëllëg ndaxte li nga xam ne moo di sport comme nangul nañ leen ñu wéyal seen activité ñoom itam war nañ leen a mën a bàyyi ñu wéyal seen i activité nangu nañu wéy ci li nga xam ne moo di mesure barrières yi waaye lenn la ñu dul nangu mooy ñu dakkal seen ay activité ndax dañoo yor ay njaboot di ko dundal te dañu doon voyager di dem di ñëw te coronavirus bee leen tëj ci réew mi mënatuñoo génn te itam bu fekkee ne ni ñu ko waxee ni lañ koy defee dina metti ci ñoom ndax yoratuñu dara ci seeni poos mbokk yi xarit ñu doon euh, taaxeerlu ci suñu gaal 24 fii la ñu ci bii la jataayu xibaar di ñaan ngeen woyee suñuy programme ñaanal leen fanaan ak jàmm jox leen dig daje ëllëg incha allah. Sunugal 24 point net l'information à sa juste valeur c'est ici même Sunugal